Sénégal na ngeen abonné bitim réew na ngeen abonné KBN na sikkal abonné Daaru Maam Omar da liggéey kooku jar na màggal ndaw ku jubu te sellal Seydi Makiyu waaw waaju yàlla baaxal waaju yàlla baaxal kooku jar na màggal ndaw ku jub ta sellal saydi maakiyu waaw waaw waaju yàlla baaxal kooku jar na màggal ndaw ku jub ta sellal saydi maakiyu waaw waaw waaju yàlla baaxal kooku jar na màggal ndaw ku jub ta sellal seydi maakiw waaw waaw maaki moo da baay ba maaki moo da ci jëmmag ci xaal ba réer na ñëpp cëram ba seydi maakiw waaw waaw waaju yàlla baaxal kooku jar na màggal ndaw ku jubu ta sellal seydi maaki waaw waaw maaki moo da baay ba waaw ci àll ba waaw réer ñëpp cëram ba waaw waaw góor gu baax gu jubu la waaw tom gu gëm ko rekk mu la sopp kii deraw la seydi maaki waaw waaw maaki moo da baay ba waaw en ñëpp cëram ba waaw waaw baay haasimiyu waaw kooku mooy sunniyu te doon it safiyu seydi maakiyu waaw waaw maaki moo da baay ba jàpp leen ci waay ba ah réer na maaki fa selloon di sellal waaw dundam lépp di wéetal yàlla rekk di màggal Seydi Maakiyu waaw waaw aji moo da baay ba si jëmmag ci xaal ba réer na ñëpp cëram ba Seydi Maakiyu dundam daal xasur na ah mayam nag kasur na waaw maqaamaam ya na seydi maakiyu waaw waaw maaki moo da baay ba ci ca mag caal ba waaw reer na ñëpp cërëm ba waaw waaw wilaayam ga rëy na ah, ya siiw na ijaabaam ga wér na seydi maakiyu maaki moo da baay ba waaw ci ca mag ci xaal ba reer na ñëpp cërëm ba waaw waaw itim rëy na dox na waaw tey wëm ya daj na xam-xamam ba set na seydi maakiyu waaw waaw waaji moo da baay ba si jëmmëg ci xaal ba ren ñappa cërëm ba seydi maaki basir moo ko jàngal quraan moo ko meetal kutub yëpp la raafal seydi maaki yu waaw moo da baay ba looy way ah waaw basir moo ko jàngal qur'an moo ko meetal kutub yëpp la raafal seydi maaki yu waaw moo da baay ba ah ci haal ba mm. rek ñëpp cërëm ba maaki fa ilmun mubiinun wa kashfun yaqiinun wa rifqun waliinun lili maaki waaw waaw maaki moo da baay ba loxo yi ci jëmm ak ca xaal ba ah, ren ñëpp cëram ba maaki fa ilmun mubiinun wa kashfun yaqiinun wa rifqun waliinun lili maaki yu waaw waaw maaki moo da baay ba waaw ci jëmm ga ci xaal ba ah maaki am na hit hidaaya wakazal inaaya fërëy lool wilaaya seydi maaki yu waaw waaw maaki moo da baay ba waaw ci jëmm ga ci xaal ba ah cërëm ba sëy masul def lu ñaawta mastu wax ñaawta waxam ak jëfam tuu lu baax màkkiyu waaw waaw màkki moo da baay ba waaw ca jëmmëg ca xaal ba ren ñëpp cërëm ba waaw dundam sànkuwul ndaw jëfam pertewul ndaw mbiram tardewul ndaw seydi maaki yu waaw waaw maaki moo da baay ba mm. waaw ren ñëpp cërëm ba seydi waaw waaw aw fanam guddudu waay meesa sam boyul waay masul xaw di defa ay seydi maaki yu waaw maaki moo da baay ba loxi ci jëmmaga ci xaal ba réer na ñëpp cëram ba seydi ma waaw waaw demam beete woon na daaru meeti woon na sa bis bi de tiis na seydi maaki yu waaw waaw maaki moo da baay ba ah waaw maaki demam beete woon na waaw daaru meeti woon na sa bis bi de diis na Seydi Macky yu waaw waaw Macky moo da baay ba waaw waaw ba Seydi waaw waaw góor ña ak jigéen ña ndaw ña ag magam ña ñu baax ña ak safaan ña di jooy Macky waaw waaw Macky moo da baay ba waaw a den ñëpp cëram maaki diina jooy seex bi ak tariqa seex bi islam jooy na seex bi moodu maaki waaw waaw maaki moo baay ba waaw waaw ñàkk kii metti at yëpp di sotti fan la ñooy jëleeti mislu makki waaw waaw makki moo da baay ba ci jëmmëg ci xaal ba mm. waaw waaw ñàkk kii fa metti xalaat yépp di sotti fan la ñooy jëleeti seydi makki waaw waaw makki moo da baay ba waaw ah. waaw waaw ñàkk kii fa metti xalaat yépp di sotti fan la ñooy jëleeti Seydi Macky yoo Macky moo da baay ba ah Macky xam na jub na Macky xam na jub na loxo yi xam na jub na Macky baax na yiw na Macky set na leer na Seydi Macky waaw waaw Macky moo da loxoy way ci jëmëg ci xaal ba reen na ñëpp cëram ba waaw waaw xam na jub na Macky xam na jub na Macky baax na yiw na Macky seet na leer na Seydi Macky waaw waaw Macky moo da baay ba waaw waaw waaw maki ko refet ku te doon ku tab ku soloon ta yem la seydi maki waaw waaw mandu woon na dal fegu woon na tey yaatu woon na ci yiw maa kiiw waaw moo da baay ba ah mm, ci jëmbat ba dena ñëpp cërëm ba waaw ku ñàkkoon la caaxaan ne lool ci ihsaan nekkoon baaxaru irfaan seydi maa kiiw Macky fa doonoon xafiifu te man lool du yoofu te am loolu lutufu ci nit Macky waaw waaw moo da baay ba ah mm. kenn du war fa metti fa amoon ñewen ku feebar mu seeti Seydi Macky waaw waaw Macky moo da ba ah si jëmam ci aal ba ber hmm. na jàpp jërëm ba Seydi Macky Macky masul yàq mbokku fadan jooku mbokku tandooku jullit Macky waaw waaw moo da baay ba ah si jëmam ci aal waaw Mbacké mbokkam yépp la sopp ndax yónneen la topp masul ñàkk bopp Seydi Mbacké waaw waaw Mbacké moo da baay ba ah mm, nee cërëm ba waaw waaw amoon teegiin lool ci képp kuy magam xool bëtëb yërmandeem yool ndaw ña Mbacké

ñu baax ñëpp la mi waaw ko am kii du jommi Seydi Makiyu hmm. waaw waaw waaw moo dëkkee man Maki moo dëkkee man loxo yi Maki moo dëkkee waaw Maki moo dëkkee waaw waaw Maki moo dëkkee waaw waaw Maki moo dëkkee am ak i mooda keemaan te ni mel ci iimaan ala julla insaan seydi maaki waaw waaw ren na ñëpp cëram waaw waaw maaki raw na maasam maaki raw na waaw waaw maaki raw na waaw waaw maaki raw loxo yi maaki raw na waaw waaw Macky raw na waaw waaw Macky raw na maasam doom ju donnu baayam topp loolu tànkam Seydi Macky ah waaw waaw waaw ami xam la yombul ami xam la yombul woy la kañ la yéemul lu baax leen na jombul Seydi Makiyu de baay ba ah. ne ko xami xam la yombul xami xam la yombul way kañ la yéemul lu baax leen na jombul Seydi Makiyu ah Mm. waaw waaw xami xam la yombul li ami xam xam la yombul yow way kañ la yéemul lu leen na jombul Seydi Makiyo waaw reena ñëpp cëram ba waaw doomi xodu bu piir kat mbiram man na foor kat yaada caatu kii kat xomar makkiyu makki moo da baay ba waaw ci àll ba makki ta sa mbir fa yaatu te wax ko du xaatu falay way faatu seydi makkiyu waaw ah maaki yow sa mbir fa yaatu te wax ko du xaatu ndaw daal a ba faatu seydi maaki yoo maaki may sa gaw may ma yaa da gi jox ma sambay ndaw yulil ma seydi makiyu maki moo de waaw si jëmam ci àll ba ren na ñëpp cëram ba seydi makiyu waaw ami xam la yombul woy kañ la yéemul waaye lu baax leen na jombul seydi makiyu maki moo ci jëm ak ci àll ba gën a jàpp cërëm ba Seydi Makiyu